للنبي ولمن يقتفي صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعده بملاسمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلا إلى ما شاء فإنه يلازم ما أرزاه وأساء قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه السلام معطي السور وللتي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضيق وويل لمن لم يعقد ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلام من جاد بانتقاء وأوصيكم أيها الإخوان ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أغرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلامه بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعيد جلدي yi ñu ngi leen di nuyu fu ab julit mën a ne bokki lislaam bi yépp ñu ngi leen di alxalifatu am li taifati l muridiya di ko jot lil ndokkeel gum ndokkeel jullit yépp ñi mbokkal lislaam ji ñépp ñi mbokkal bis bi ñépp ak fu ñu mën a ne ci xaalam bi mi ngi leen di ndokkeel di feddali bokk gi di fokk fekk feddali li ñu yàlla boole innamal mu'minuuna ixwatu jullit yépp yàlla dañoo lëkki ni ñun ñépp ay bokk lañ fa aslihu bayna axawaykum kon nag waxtu wu ne leen leen defar seen diggante mi ngi ma ngi leen di nuyu ci turam fas yéene waxtaan ci bis ak solos bis bi fas yéene leen cee waxtaanal tuuti nag ci li cosaan bis bi ak liñ ci mën a jànge tam tam amal lu njëriñ danañ ko gàttal nag ndax ci lañ ne waaye li nga xam ne lañ mën a ci bis bi mooy ibrahima dafa doon koo xam ne yàlla bis doon ñaan nag yàlla may ko doom ñu di ko fexeel waaye mu ne maa ngi dem ci yàlla fa araadu bii kaydan fa jannahum sore wa qaala inni zaahibun ila rabbi sayahdiin maa ngi dem ci yàlla yàlla dama dana ma gindi ba mu demee mu ne ko rabbi habli min as-saalihiin may ma ci may ma ci gaa yu baax yi yàlla nag fa basharnaahu bi gulaamin xaliim ñu daal koy may ab fere bu bu lewet neex deret bu baax moom it mu daal wax ak moom nag ne ko man damaa gént xaala yaa bunayya innii araa fil manaami anniya adba'uka fanzur ma satara mu ne ko doom bi fekk doom da ko bëggoon lool mu ñaan yàlla mu may ko ko ba noppi nag mu gént ne da ko war a rey bi mu ñaanee bi mu géntee nag wax ko doom ji doom ji ne ko xaala yaa abati fal maa tuuma bàyyi defal dañ la digal sa tajiduni insha allahu min as-sabirin da ma fekk ma bokk ci ñi dàq muñ ñoom ñaar ñëpp ku ne am daptu nafs mooy yeew sa bakkan ba la nga war a def rek ngay def la nga wërti def doo ko def moo tax waxtaan wi tey mu ngi ko def ci daptu nafs rek tënk ko ni ñuy def ba ni ko lis ni ko borom xam-xam mi waxe mu tënkal leen ci dara rek ci ni ni lislaam bëgge daptu nafs doom ji saalitut baay bi saalitut te te lañ bëggoon yàlla defal na leen ba ñoom ñëpp bañ nangolee yàlla ndax yàlla day seet rek ba xam fi sa kattan gëm toll فلما أسلم وتله للجبين ونادينا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم يا لا يا جبريل جاكو اب غات بو مات نيكو جوتي كو لول مو اندي سولو سولو دفت النفس غوغو nga xamne nak day lo xamne borom xamne dañ ci bindu lu bari دفت النفس موي تك سبكن تك سبكن با دو بور نون لا كو مانا فيري ci tek sa bakkan ba du bur lu mam yeew sa bop ba du màmm du bur moy daptu wala nga ne moy mer mus. li seydou khadi daf nan ma lu mer mus nga xane ne lii la naqari kenn ko xam ci yow sunna nëf si moom la wax legui rek ritini moy moy nga yew nga yew sa bop ba do wax lo wax do def lo def l'islam da ko fonk lol gis nga ibrahima mok mok dom ji mok ismaila ku ci ne tolloon nga fo xamne ne lu ne mana na xew ci digante ak yalla waye da nga tak sa bakkan ba dara yëngu dot sa bak dot sa bakkan ba munta bur munta mam lol ne lol lañ koy firee ci waro bu ko defé nak borom xam-xam yi dañu wax ne nafsi mooy li jumtukaay bi xiyaas sa ngëm ci yàlla fu mu toll benn baat boo xam ne arab yi arab yi ak euh, nasaraan yi ñoo ko bokk thermomètre thermomètre ngëm mooy mooy mooy mooy mooy dottu si dott sa bakkan ba du ba du yëngu bu ko defee moom lañ bëgg a waxtaane tey dott ndax li tax lislaam bindkati lislaam yëpp dañ koy bind wax li ci yonent bi wax ndax dafa doon sëñ bi bind ci lu bari ndax deftul nafsi ki njëkk a rey doomu aadama ci ak kaw suuf muy xaabil muy haabil muy xaabil tooñ jëm tooñ haabil ñaari doomi aadama yooyu ci dabtu ñàkk a def dabtu nafsi moo ko def ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وسالك السليم وسالك جزاء الظالمين القرآن دفنيت لنا كي نكري muy benn doomu ñaari doomi aadama yi dañ doon jaamu yàlla ñu nangul kenn boo booy jàmm yàlla daa am lu looy teg fii bu dara ñëwee lekk ko ñu xam ne si yàlla nangul na la bu bu loola dara ñëwee lekk ko lu jóge ci asamaan si ñëw jël ko bu fekkee jëlu ko kenn nag bañ bañ bañ nangulee kii te nangul kii kenn ne ne mbokk mi danaa la rey ah, mbokk bi ne ko ah man de boo tàllalee sa loxo ngir rey ma it man duma la rey ndax man damaa ragal yàlla te ragal naa ne bàkkaar bi yëpp dana wàcc sa kaw nga bokk sa waa sawara waaye bakkan bi nekk yi mu nekk mën a téye bakkanam fa tawaxat lahu nafsahu nafsuhu xat la abi fa xatalahu bakkanam ginnaaw téyewu ko bakkan daal koy xëcc mu rey ko fa asbaxa min al xaasirin mu daal di bokk bokk ci ñëw mu daal di bokk ñe perte moo tax kenn du yéem borom xam-xam yi dañuy wax ne du ñu yéem ñaawalu ki du ki ki ki nit ki nit ku am maanaa ñaawal gi ñu koy gi ko nit di tooñ kenn du ko yéem waaye yaa ña li ñuy yéem mooy tooñ gi ñu koy tooñ mu ne mu ne jéggal naa la ah, loolu sëñ bi bi sëriñ Tuubaa am doy na li ko tubaab bi def lépp bi mu wàccee géej géej gi ba mu dafa ñëw dane xafaw anil ahdaay turran li wàcc man na fa am li xëyri sarmadan la bu ko defee nag ngeen xam ne loolu ku ko bëgg am dattu na si ku ko bëgg am foo koy tàmbali mooy yar yar ndax yonent bi dañoo jàngal ne dañoo jàngal ne wa addahi sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa xaaliqi naasi bi xuluqin hasanin lu ñu la defal ci lu bon danaa ko gën a firiwaat ci kanam lu ñu la defal ci lu bon rek yow fayal lu baax ndax kon da koy far loo gis ci lu bon rek fay ko fare ko lu baax te di te nit ñi ngay jikkoog ñoom jikko ju rafet rawaahu tirmisi yu wa daarami boo ko defee nag ngeen xam ne sëñ Tuubaa nag loolu lu ne mbir mu ne rek jàngale la mu ne mu ne yar boobu nag moo tax mu ne wamin mu bokk na ci teggin tarbiyatu kal awlaada li kay yanaalaw ba'daha rashada yar gone yi moo jiitu ci boo bëggee tekk sa bakkan boobu ñuy wax boobu ñuy jàng qultu wa minhu lutfu bistaxiiri wa misluhu tabjilu lil kabir bokk na ci mag mu ne mag gone goo gis dee ko yërëm waaye gone gi gone goo gis ne màggal mag te di ko wekk wa jahlu mislika ka nafsika istiwa wa xayru si mi mastaxaamatan hawa koo gis def ko ni sa bopp ak lépp neen loo gis lu baax rek ne ca te xam ne loola ci ci yar la bokk yonent bi sallallahu alayhi la sallam daana soññ ay saabaam lool ci daftu nas am na boo xam ne daa gis ku ñuy wax asajul qays ne ko inna fiika xoslatayni yuhibbuhuma allaahu alxilma wal anaa asajul qays gis naa ci yow ji ñaari jikko yu yoo xam ne yàlla bëgg na leen lool mooy neex deret ak lewet rawaahu muslim wa tarmisi wa ibnu maaja sallallahu alayhi wa danaa yar waa këram ci lewet ba ba bu asbatu ñëwee nga mën a xam fi ngay jaar nga xam ne jàng lislaam dañ cee jàngalee da cee jàngale ne faka faka maa taxlumu taxlumu naasu alay noo lewete rek nit ñi noonu la ñuy lewete ci yow noo neexee dara wa yahdi llahu qulubahum laka te bu waa yàlla day foqal yëpp ñu wut si la waaye waka maa taxadibu laa tara min qulubi nnaasi illaa xaswatan boo boo naqaree deret foo jëfleentul ku ne naqari deret laa yoon moom it loolu la lislaam jàngal loolu yàlla bi muy jàngal yonent bi da ko njëkk wax ne walaw kunta fazzan ghaliz al qalbi lan faddu min boo doonoon ku dëgër ku ñagas ku ku ku xol kon mbooloo mi ne la boole dana tasaaroo ci sa sa loxo loolu la ko wax kon da ko aaye da ko aaye loolu kon ana ana nuñ mën a def ba daptu na suñu man ko am mooy yii may bëgg a wax mahrifatu ma'alati umuri mbir mu ne fam nar a mujj da nga koy teel a xam moo la mën a dimbali ci ngay tax ngay ngay ngay ngay nga am dabtu nafs ndax inna taharruf ala xawaaxibi l umuri wa itqaani qaahidati l masaalihi wal mafaasidi min ahsani l asbaabi alladi tamnau min altasarrufaati al xaatiya mbir yi boo xamee fu muy mujj xam la ca mën a yàqoo ak la ca mën a defaroo bokk na ci sabab yi tax doo juum te loolu alxuraan dañu ko jàngal xaaxidatu mooy li ñu alxuraan jàngal mooy yàlla daa wax yonent bi nag wala tasubbu alladina yadxoona min dunillahi fa yasubbu llaha adwan lahum bi xayri hilmin ci suratul an'am bul nga ne jullit ñi buñ ŋàññati ñii di ñii di jaamu xirim seen yàlla yooyu bu leen leen ŋàññi ndax bu leen leen ŋàññee dañuy fayoo ci ŋàññi ma man yàlla kon kon gis nga xalaat gi nga xalaat nit ñi fu muy mbir ni ci jàngale jaamu xel ku ne xam ne li ne baaxul mu ne bu leen leen ŋàññi ndax bu leen leen ŋàññi day tontu te liñ leen tontu man yàlla la ñuy ŋàññi nga bañ nag loola am tax lii nga waroon ko def nga bañ ko def loolu loolu noonu la alxuraan jàngale ndax fiir ci suñ diine mën naa tax nga gis lu ñu def lu naqari yàlla nga jëfandiku ca loo xam xam nga sëñ Tuubaa den wala sa muf diyan li sarin ak bët li ngay li ngay aaye bu fekkee nar naa jur ay dangay seetaat na neen noo jaar ba ba li nga bëgg am tax ayoo du am <coughs> wala sa muf dara li wala waaw moom la ci jawar ne bis léegi wala sa muf ak bara kon nag léegi loolu ci bappam moom lañu war a jàng ci moo moo la ci njëkk a dimbale ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam de moom dafa wax ne innamal ilmu bi taallumi wal hilmu bi taallumi loolu borom xam-xam wax dañ ne xam-xam yang koy amé ci jàng way neex deret yaa ngi koy amé ci jim jim koy jima neex deret loolu la loolu la xekkam yor sallallahu alayhi wasallam nak moñ ci jàng ndax am na bis boo xam dafa wax ne kuntu am si maha rasulillahi anas moo ko أنس من أمن بس كنت أمسي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي برد النجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبسه جبسة شديدة حتى رأيت الصف أو صفحة أو صفحة هنوك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من سدة جسده فقال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء yéen anas yéen dama ànd ak yonent doxantu nit jekki-jekki rek poñe ko poñe bu dëgër bay seetlu naa ne baatu mbub mi xaw na koo xerandi ba mu mu xaw mel ne lu dagg mu ne ko alali yàlla ji nga jox jox ma ci la wax yonent bi ràlli ree mais daal yor jox ki ki yor magasin bi ne ko jox li mu bëgg ba kanam boobu am na boo xam ne it sayd ubnu soxnata moo ko net di jaa sayd ubnu soxnata ila rasulillahi yadlubuhu daynan lahu fa axada bi majaamihi xamiisihi wa ridaa'ihi wa jazabahu wa axlada lahu alqawla wa nadara ila annabii bi wajhin xaliid wa qaala ya muhammad alaa taqdiini xaqi إنكم يا بني عبد المطلب قوم معطل وشدد له في القول فنصر إليه عمر وينع تدوران في رأسه كالفلك المستدير ثم قال يا أهد الله أتقول لرسول الله ما اسمه وتفعل ما أرى فهو الذي بعثه بالحق لولا ما أهاسر لومه لضربت بالسيف رأسك ورسول الله ينصر إلى عمر في سكون وتؤدد وتبسم ثم قال أنا ثم قال أنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي اذهب به يا عمر فقضه حقه وسقه عشرين ساعة من تمر فكان هذا سببا لإسلامه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يونت bi سيد بن ibn Fana da koo dab di ko fayu bor bu mu ko amoon te boobu du du jullit moom ne ko fay ma sama bor bi ne ko yéen giiru euh, waa kër Abdu Mutalib da ngeen di téye bori jàmbor yi rek du ngeen fay kenn tàng daal koy wax wax ci ñagas Omar daal koy xool bët yi mel ne buqi ko ndax ndax sàngoor Omar daal ne ko yow noonu yàlla bi lu tax ngay wax yonent bi li nga wax lu tax nga di ko jëf bi giiñ naa ne bu ma rëgalutoon ku ma yedd danaa dagg sa bopp yonent bi di xool di ree yonent bi dal muuñ ree ne teg daal ne Omar ah maa ngi moom de ku ci ne soxla woon na nga dimbalee ko lu dul lii nga wax man di damaa bëggoon nga digal ma ne ma boo amatee bor dee ko fay fayin wu rafet moom mii nga ko boo buñ la amalatee bor dee ko fayu fayin wu rafet Omar demal nga fayal ma ko bor bii ma ko ameel léegi te na ko ca dolli ñaar fukki saa ci tàndarma ñaar fukki saa ci tàndarma mooy juróom fukki kilo juróom fukki kilo yi tàndarma ci gëdd gi nga ko gëdd nang ma ko ci dolli loolu mooy dottu naf si bii laa leen di wax ni ni mu amee solo sago soosu yërënt bi am ak ni mu diggantile waaye ca la doxe far jébbu daal daal dugg ci lislaam te fekk doontoonu julli am na ku ñuy wax ahnaf koo xam ne daa doon koo xam ne dañ xadiba xadiba lahu miatu alfin laa yasalunahu laa yasalunahu fi ma xadiba daa doon koo xam ne bu meree téeméeri junni nit mer te duñ ko laaj tax nga mer waaye moom kenn mu defe ba mu mer Ahnaf la tuddoon sangu moo doon sangu aw nitam ñu ne ko nag waaw yow Ahnaf koo xam loo leet mi man taxallamtal xilma xaala taxallamtoo min xays ibni xaasim xaasim xays ibni xaasim daal moom ci laa jàngee neex dara waaw ñu ne ko nu mu defoon mu ne xaysu kaane yawman jaalisan maa asaabi fi majlisi ji fa jaa lahu bi rajulin muqayyadin يرصف بالحديد وقالوا له هذا ابن أخيك قتل ابنك فالتفت إلى ابن أخيه وقال يا ابن أخي أقتلت ابن عمك عمك وأسرت إلى رحمك وأحرمت نفسك ثم التفت إلى ابنه وقال قم أطلق سراح ابن عمك وأدي الدية إلى أمك وجهز أخاك ثم أذن بعد ذلك واستمر في مجلسه من من ما دفت كلا وجانجه Qays ibn ndax dafa dañoo toog bis moo ñëpp wër ko ay gàngooram yëpp wër ko ñu jéng nit indi ne ko fekk ko ci jotaay bi ne ko kii de rey sa doom ne teg dal dal fekk dooma ma kooko mbokk ma ko jub ñu ne jii moo rey sa doom jii mu daan ne ceen daal di jàkkaarloo dañ ko jéng bi ñu koy indi dañ ko jéng ne ko rey na sa doom bi te fekk mook baayam ñoo bokk bay mu ne ko mu daal jàkkaarloo kooku nekk waaye yow lu tax ngay lu tax lu tax ngay rey sa doomi bàyyi ñaawal nga sa bopp tooñ nga sa bopp waaye anas daal di jàkkaarloog doom ji nga xam ne moom la ki bokkal ndey mu ne acca gaawal ñuy jéng sa doomi bàyyi ñuy jéng demal yeewi dindil jéng nga xam ne moo ko ci war demal wut ko jox ko sa yaay te te te sa mbokk ma ngeen waajal ko bu ñu noppee ngeen fekk ñu bi ñuy waxtaanee ñu yëgal ñu seetal dal googu mu am daptul na si googu am na ku ñu wax maymunam ni muhraan dafa doonoon koo xam ne da dafa toog moo ki nitam mu di leen berneel bi mu leen di berneel nag mu ba ñëpp wër moo ab jibéeram ab jibéeram ñëw nag yenu ñi supp bi mu leen defaral fa jaatil jaariyatu taxamilu maraqatan xaarra li tuqaddimaha lahum fa xasarat wa saxatatil maraqat ala maymunam ni muhraan nag mu fakkastalu baag lépp daanu jum leen war ber la mu taali mera mera wa kaada an yuxaaqiba bëgg na ko buggal waaye jibéer bi jàng na alquran jibéer bi nag ah xasbu xanaa jàngoli yàlla wax ci alquran wal kaadimina gisoo ñooñu yàlla wax leen ñii wan mer nii leen yàlla taggee xanaa dañ koo mu ne mu daal mu daal ne wan naa sama mer mu ne ko wal xaafiina xana naas moo ci tege yi ñu jéggale mu ne ko jéggal naa la mu ne ko walaahu yuhibbul muhsiniina ci tegar yi yàlla bëgg na koy rafetal bi mu ne ko goreel naa la mer ma noonu la noonu la soppi kon nag bokk na li nga xam ne moo la mën a dimbali ci ci ci loolu mooy loolu ma njëkk wax bi ci topp mooy ihraabu anil jaahiliina mooy koo gis ko xam bu waxee mooy deuxième mooy mooy mooy mooy mooy bi nga xam ne moo moo ko ñetteel déedéet mooy bi ko ñaareel bi ma njëkk wax mooy lii la ciy musal boo dee bàyyi xel loolu xam mbir mi fi mu mujj daal bi ci topp na mooy iraadu xali jaahiliina maanaam lu ñu la mën a wax rek ñi ngay ginnaaw ki koy wax xamul rek bu ko tontu fasil xafa waamur bil urfi wa a'rid anil jaahiliin jëfandikoon laayee woowu bokk na ci lii lay dimbali ndax euh, alxuraan am na ci isaa xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaam ñi nga xam ñu ne jàmm-jàmm rek bu ñu dalee ci seen kawit duñu leen tontu te salaaman salaaman ñooñu alxuraan da leen tagg ci suuratul furqaan dee ko joñee lu baax rek buñ ne lekkee dalaa bañ it dee ko defoon lu baax yëpp dangay mujj kala noonu woon mooy mujj doon sa xarit waaye alxuraan nee na nag lu jafe la ku mën a muñ te moo ko mën a def yàlla ci yàlla boole ndax loolu moom bu ko dee yonent bi nee na ittaqillaa haysu kunta ba tey moom la firi fii وأبه السيئة الحسنة تمهوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي والدارمي يونت بي نينا ديل راغال يالا فوني تا لو بون لو ني ديكو ديكو فاري لو باخ تاي ني جيكون ني غي جيفلنتك نيت ني دي لين وان جيكو جرافيت با تا توك موي نوغو ديسو دا نا تاخ nga sabakan nga man ko tak ndax diso yalla da ko beug lol motax mu digal ko yonne bi yeren tibi ne وساويهم في الأمر مجي ديسو نيوم تيمبيري إذا بلغ الرأي المشورة فاستعين برأي نسيه أو مسورة حاسم أنا وياك بقول بودي ديسو رك دي ديسو خلاط كلابير ولا كو تاكو وساوير إسا ساورت كل محسب لبيب أقا حسب لترشد في الأمر بودي ديسو ديسو على كياو كو أم خل كتكو جيمو تكلي تيو يوم bu boobaa diisoo googu dana tax nga mën a daftu nafs bii ñu lay digal da nga ko mën dana la ci dimbale ndax boo diisoowut léeg-léeg nga gis jàppe loolu alquran di wax nee na mën na laa dal afa man suyina lahu soo xamalihi faraahu hasanan da nga gis koo xam dañ laa raf dañ laa pentural lu bon loo loo loo war a ñu ñu seytaane pentural la ba nga teg ko loo rafet te boo diso won danañ la ca mën a wan ndax man ngaa gis faqad yakunu ahaduna yaral xasana xataan wal xataa xasana te fekk boo diisoo nag daa ngi ci mën a génn laaj ba ko ba ko juróomeel mooy sabru ba taqwa muñ boo muñee dara kenn du la mënal dara muñ tey bàyyi xel yàlla wa in tasbiroo wa tattaqoo laa yadirkum kayduhum shay'an inna allaha bima ya'maluna muhit ci soot ali imran yàllaa ko wax delluwaat wax ne wa in tasbiroo wa tattaqoo da yonent bi sax la wax allah yow dafa ne wala tasmahunna min alladina utul kitaabi min qablikum wa min alladina ashraku asan kasira waaye wa in tasbiru wa tattaqu fa inna min azmi l-umur yonent bi lor ju bari danañ la ko def ci yéefar yi nga nekkal ci arab yi ak yahood ak nasrani nga xam ñoo la fi jitu woon waaye boo muñee sa ragal yàlla am nga doog go xamne kenn mënu la yakal yakal dara ta lolu serigne bi ci lolu la jaar ba dara kenn su koo mënal dara ndax alxuraan ak wax boo ko defee laa yadrikum kayduhum shay'an ñoo mën a nekkal duñ la seeni pexe du la mën a yàqal ba kon nag la ca topp mooy nga jiim ma xam sariha li mu wax ci ku mer ndax ñun ñëpp kat ku ci ne mën ngaa mere sa sa doom mere sa soxna mere say bokk ndax fu ne la seytaane mer ci seytaane yi jóge bu woowee danga war a jiima xam lislaam lu mu wax ci ku noo mën a def ba ba mucc ana islaam lu wax ci yonent bi lu ñu jàngal ndax ku ne mën ngaa mere fa kayfa yaqsal waahidu minna xadaboo fa masala isaa xadibal waahidu minna ala sawjatihi mën ngaa sa doom aw soxna wala sa doom aw ala axaaribihi aw asal xadab noo war a def ba mere mi dañ loolu bi lislaam jàngale na ko de la ci njëkk mooy al istihaasatu min asheytaani rajim foo mere yoroon sa kus naan aouzu billahi min seytaani aouzu billahi min seytaani rajim aouzu billahi min seytaani rajim aouzu billahi min bu yàggee mer mi dana dañ ndax Souleymane mu surat nee na toog naa ci yonent bi kuntu jaalisan maa nabi wa rajulaani yastabbaani fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu wantabaxat awdaajuhu fa qaala sallallahu alayhi wa sallam inni la ahlamu kalimatan law qaalaha dahaba anhu maa yajidu maa yajidu damaa toog ak yonent bi ñaar di fa xuloo ba kenn ki daanaka eh, nenk tañ bi moom la war a moom la wolof di am nenk tañ mooy tegg lex yi tegg lex yi nga xongu coy naar bu meree noonu lay mel yonent bi ne xam naa baat boobu moom bu ko waxoon rek mer mi dañ ñu ne ko bu yonent bi bu mu doon mu ne auzu billahi mina sheytaani bu ko bu ko doon wax rek mer mii ko day léemu léemu day ana beneen bu yonent bi jàpp jàngale mooy noppi ak sukóotu boo meree bul noppi bul wax lox loo wax rek mën nga ko rëcc isaa xadib te iyaaka wal kalimat uxruj wala ba ko ñetteel mooy uxruj watrukil moo daw fi nga meree gaawal génn yonent bi nee na bu la fekkee nga jàppoo dama ci wana wa def jàpp wala nga sangu farata sangu te ngaay doon lii ndax mer ci ci sawara la boo ko sottee ndox ñaare day fay loolu la yonent jàngale moo tax sëñ Tuubaa jàngal ñu nag nee na usturil xay ba mastataata bi sumtin ina fi sumti raaxatan li sumut ayib yëpp dee ko suturaal ak sa ayib wopp ak lépp ci noppi ndax noppi lépp neen noflaay la ci ko noppi waccali sumta in xayita jawaaban ruba xawlin jawaab boo fi sug bu fekkee lottu nga ci tontu nit xulóog yow wax wax wax lu ko neex neel ci yàlla rek bañ koo tontu nee na na bari na wax yoo xam ne tontu la mi ngi ci noppi boo noppee rek kooku day gërëm sëñ Tuubaa nee na wax nañ ne sëñ Tuubaa ko nett ci nax ju ne law kaana wax nañ ci xikam ne law kaana al kalaamu fiddatan la kaana sukuutu saaban bu wax doon wurus bu wax doon xaalis noppi wurus la si yonent bi daal di wax ne isaa xadiba ahadukum wa huwa qaayimun fal yajlis fa in zahaba anhu alxadab wa illa fal yaltaje rawaahu abu daawud wa ahmad yonent bi ne ku mer ba la fekkee taxaw toogal bu dee